wàcce ak Limoges mu def ko ndax noonu la ko ñëpp di defal fédération yi nekk Europe yëpp moo koy coordonné yàlla suturaal na man nag maa ko jox tarixa bi waaw ñun iñaanuñ te duñ iñaan mukk nag incha allah su ko defee kon muy ku baax nag ku am taxawaay ca Europe di dimbale bu baax nit ñi ci li ko yàlla dënk ci dooleem ci lëppam waaye di dimbale tarixa bi foofa nag bu baax a baax a baax tabaarakallahu kon aliya ñu ngi lay wax bismillah di la ndokkeel danañ la jox kàddu gi di nuyu Omar Diop caméraman ak ñépp rek tabaarakallahu dafa am ñaar yu ma bëgg a wax Bachir Imam Sey ñu ngi lay sant bu baax ku sonn ci courant bi fii pour ma am carte la xam nga man bële laay utilise rek waa kër gi ibu mi le sama doom bi lay wax a wax a wax a wax nañ carte nañ carte rek waxuma carte bii de nañ ut kontóoru carte mooy gën a kii mooy gën a kii ma ne ko bu coupé te nekkuma fi nag mu ne ma jënd ma ne ko ndox yàlla naa ci doxee sax bu ma jënd ci man <laughs> ah, waaw ma ne ko bu carte bi jeexee fekk ma tukki nag mu ne ma ma jënd ma ne ko ndokk yàlla nay jeex fekk may tukki ah xalifa sec waaw ah kañ ñoo bokk Espagne ma yow bu ko defee rek moom muy jënd rek dana xam lu courant di jar bon incha allah ñu la ciy sant ku ci sonn la lu ne la ci dox ba ma am carte carte bi tamit kontóoru carte bi yombut bi mu ñëwee tamit attanut ñaari clim yi lu ne lañ ci daj mook ma Pam Modou ba ut séparation nu ñu def benn clim bi di marché fii beneen bi di marché fële yooyu yëpp dama koy wax pour sant ko rek Adja tuuti mu ngi fi. parce que jigéen lu alalam bari bari moo ko moom bokk ko kenn góor lu alalam bari bari daf koy partage ak soxnaam ak i doomam même sa doom koddaay bi yow la war yow bàyyi ordonnance yaay jënd koddaay yi yow la war dàll yow la war. scolarité yow la war léppi xale yi yow la war ndey nii croiser les moo ko war léegi nag contraire bi la jigéen ñi ñooy dee ci scolarité xale yi góor ñi ne yàcc rek di xool te bu demee ba tekki ngay tiitaroo c'est fii fille c'est ma fille hein c'est ma fille elle travaille au ministère c'est mon fils c'est mon fils le directeur général c'est le capitaine de police te bam ci tolloo naroo woon ci moom dara defoo woon ci moom dara bàyyi ndeyam muy daw guddi ak bëccëg suba ak ngoon bu tekkee nag nga di ko xëccoo balaa ngaa xëccoo sonnal njëkk kemte laay la nga mën wala hunna rizquhunna wa kiswatuhunna la yàlla waaye bil maaruf nee na jigéen ñi wala hunna ñeel na leen yéen góor ñi rizquhunna seen seen dund wa kiswatuhunna ak seen koddaay bil maaruuf ca la nga am laa yukallifu tegut laa déet yukallifu muy teg nafsan benn bakkan moom suñu boroom illaa lu dut wus ahaa la mu àttan beneen aaya illaa lu dut maa la nga xam ne aataaha jox na ko ko ci wërsëg ki am junni na dépense junni ki am ñaar téeméer na dépense ñaar téeméer lii rek la nañu góorgóorlu ci kër yi ñu may jigéen ñi aafiya tey ci ñett lay waxtaan diggante mel belle-mère yi ak seen goro yi sëy yu bare ngi tas fi ne te yaayu jëkkër yee ko waral ñaar rek la yaayu jëkkër bu xamut boppam ak doomu eh, jabaru doom bu réew yii rek moo tax mënuñu juboo nag jabaru doom bu yaradeku ak yaayu jëkkër bu xamut boppam yaayu jëkkër bu xamee boppam na na maandu ci sëy doomam yaa problème yaay yaayu jëkkër yaa jur jëkkër toogal toogu yaay moom mi sëy si kër yi mu jàppee la ndey nga jàppee ko doom dépense bi bu nekkee ci kër gi charia mayu la yow ndey nga yor dépense bi il faut ñu clarifier ko dépense jëkkër jabar la koy jox waaye yaayu jëkkër kañ jël na dépense ba jur na bàyyi nag dëgg dëgg nag dépense su jàmbur yow jël nga jàpp jël nga dépense ba jur yar ba màgg ba ko takk jabar bàyyee ko dépense am waaye jël dépense su bàyyi jël dépense su doom yaay kan ba mu jaral la xeex ak xulo ak xaste ak buñ toggee nga gedd ku gedd sa yaay ay ngeen lekk tibbal ko bu lekkul añ bi ngeen jox xale yi tibbal ko reer bu lekkul reer ngeen denc buy ëllëgee ngeen séddale jox ko ndékki balaa balaa añ di jotaat dana lekk de fokk ñu xam ndey wareefam ci doomam bu xesee am jabar wala bu xesee am jëkkër yilifatoo ko bu nekkee ci biir kër gi nag moom it nag na bi am kër yi boppam boo nekkee ci kër jàmbur da ngay xam ne kër jàmbur nga ne sa bàyyee moom kër gi yow moomoo ko soo ko bëggee da ngay uti kër am na loo xam ne boo ko bëggee def ci kër gi it da ngay diisoog borom kër gi ndax yow moomagoo kër gi bàyyi deewagut wala bu bàyyi dee it guñ wala buñ miiraase yàgg nii ay nit a ko bokk sa yaay dafa am wàll ci yow li sa yaay am wàll ci yow jox ko ko mooy àq njureel bu mu xiif bu mar na wodd jeex na li lay won ne boo xesee am jabar sa jabar a gën a ëpp doole ci yow waxuma forde moo ëpp doole ci yow sa ndey xam nga lu tax bu góor dee woon tey li jabar di donn ci jëkkëram moo ëpp li ndey di donn ci doomam dëgg la wala du dëgg boole ci nag plus ay doomam bu amee doom te yaa juróom alal jaa ngi nii ne gàññ ñu di ko miraas jabar ëpple la yow ndey waaw moo lay won ne kon góor ak jigéen seen diggante sori na mais yaa problème problème bi mooy xale yi tamit yaruwuñ ki nga fekk si ci kër gi boo ko defoon ni sa ndey ba nga bàyyi ca kër ga di ngeen juboo waaye da ngay ñëw bëgg a wan wañaar sa loxol jëkkër yow it bu sa jëkkër nooyee ba mel ni Sidi Kunta du xam lu xew ci kër gi sa yaay boppi yabo yi lañ koy jox di ko tegal yu bon léeg mu sànni ko tarak bu yoxe gannaaw mu ngóobi yooyu xale bu bon rekk koy def xale bu baax bu sëy see ci biir kër day jàppee belle-mère ni ndeyam mais yaa problème ci kër yi dangay ngay bëgg sëy sëy ak sa jëkkër sëy ak say frère jëkkër sëy ak say sœuru jëkkër sëy ak yi jëkkër sëy ak sa yaayu jëkkër sëy ak sa baayu jëkkër loolu mënul nekk benn sëy moo am ci kër gi sa jëkkër nga koy defal ñi ci des ñëpp rafetal lañ la sant ci ñoom rafetal lañ la sant ci ñoom waaye santuñ la yeneen yi ci ñoom kon maa ngi ñaan way jur yi jigéen yi te ñoom rek lañuy ñuy ah. ñu góor ñi ñi leen di jàmbat bariwul xam naa fiiraangeeg jigéen la da ngay dem sax ba bu ko jëndalee yére mu ne moom jabar ji rek la nopp lu ne la koy defal ku nobbut sa jabar di ko takk indi ko ci kër gi ah moom la nopp il ah, kon nobbut di nga ko takk indi ko ci kër gi nopp koo tax mu takk ko indi ko ci kër kon kañ jaadu na mu jëndal ko mbubu yow bàyyam jëndal na la mbubu ba nga retraité waaye toogal lekk sa retraite lekk sa mooy am toog ba gis sa doom takk jabar waaye loolu lekk retraite la sant ci yàlla am na ku ko amut am na ku ko am te talu hein Adja Salaba yéen waa nedd ko band xaw ma ci ngeen bokk wala bokk leen yi kenn ñëwagu fi di ma jàmbat waaye wolof yi am na ci jigéen ñu yegg ba ci ma boo may may jëkkër bu ma may ku yaayam di dund billaahi wallaahi tallaahi léegi rek am na ku fi ñëw jàmbat jàmbat ma ne ko ma may la jëkkër mu ne ma ah waaye bu ma may ko yaayam di dund ma ne ko lu tax mu ne y a beaucoup pro de problèmes yooyu nag war nañu toog ñu def ci jàngat parce que lu ñu waxut du saafarawu te yi ma wax rek mélanger yu bokkut la yaay na xam palaasam mu toog fa bàyyi na xam palaasam mu toog fa sœur ak freer nañ xam seen place ñu toog fa jëkkër ak jabar nañ xam seen place ñu toog fa buñ bokkee biir kër gi buñ bokkul biir kër gi it kadalika kenn ku nekk am na lu la war na nga ko def waaye bu kenn jol jël lool jàmbur may day indi problème yu dul jeex te suñ sañoon benn sëy du tas wala benn sëy du yëngu te dangay gis kuy sonn ci njëkkeem jënd lu ne jox ko ba keroog ba nga koy defal keroog la la gën a mën a xas te li nga koy defal kat du farata du sunna teraanga la rek teraanga la rek du farata du sunna danga koy def ngir dab bànnee xam waaye keroog lay gën a métti ci yow loo def ñu xeeb ko te ñoom duñ def dara kat ñoom ñi lay xeebal dara duñ ko def te sœur yi ci kër gi di la ngawte ngawte ku ci sëy ñibbisiwaat te ña ca mooy ñi tas ñëw ne faax nag ci kër gi di ko defanteeg yow ñaari solution rek la bu fekkee mënta rek la util lu yaas nga génn yaag sa jabar ngeen am jàmm di lekk dibi bu weer dee loo am nga waaxu ñëw ci sa ndey teg ko ci loxoom jël leneen bu sa baay di dund teg ko ci loxoom ne ko ñaanal ma su la saaga nga ne ko dollil yaay bu dollee nga ne ko dollil bu dollee nga ne ko encore moo la war a saaga na la saaga bu dee sa baay kazalika moo la war a saaga na la saaga moo la war a rëkk na la rëkk moo la war a dóor na la dóor boo paree nga fëgg fëggasu dem te ne ko ñaan la ci man rëkk yii ñaan la ci man boo ko defee rek yàlla fay la jox la lu ëpp li nga am sax waaye sa yaay rëkk la nga ciipatu wala mu rëkk la nga rëkk ko safara nga jëm wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma waaye wa saahibhuma fi dunya maarufan wa tabi sabila man anaba ilayya <laughs> man alquran lay wax de waxuma waxu kenn waxu yàlla lay wax wa in jaahadaaka wa in ca dëgg dëgg dëgg dëgg yéen góor ñi ak jigéen ñi jaahadaaka ñu la dagge sante wala ñu di la forcer an luy bijji wala luy waral tushrika nga di ma bokkaale mu di la jural bàkkaar bii man yàlla mu ne falaa tuti xumaa de bu leen topp ci loolu de moom ndey ak bàyyi ñu ne ko nu ñuy def mu ne waaye wa saaxib xumaa na nga ànd ak ñoom topp ak ànd du benn topp mooy roy bu leen ca roy de bu leen sa yaay ne la demal naa ni sàngara lankal yow jigéen sa yaay ne la entereel sa wi keccet ko xam ngeen keccet Eh, déggu leen wolof saalum saalum a koy wax Ousseynou mi dégg na li may wax keccet ko xam nga luy keccet mooy lu mu indi jëlal lu mu indi jëlal noggatu ko lekkal alalam te bu ko séyal loolay keccet waaye kenn mënatu ko jamono bii de jamono bii kañ góor ñi rokki mi rokki la maa la ko wax <laughs> booy yi ma gis dañuy naan sa yur toj sa bopp boo yéexee kañ yaay perte sax yow jigéen ndax danañ la théorie façon théorie boo xam ne kalaasu Mansour Gueye gi niñ neexee làmmiñ barki rasulullah bu ñu waxee ak yow da ngay foog ne ñii arrache lañ fanaan fekk c'est des bandits déguisés maa la ko toj sa bopp naan su yóor nga dem zéro avec zéro gis nga li jigéen di perte moo ëpp li góor di perte parce que góor saa bu ko neexee mu ne tey ma am jabar balaa jant bi di so mu am ko jigéen nag du bu ko neexee tey tey mu am jëkkër ah wala dina wër ba tas de neexle ba tas ndax ka ngay takk fokk nga nga am lu mu gàtt gàtt kilifa gu la ko may kon ni góor yombee ci moom mu am jabar fekkul jigéen kon jigéen mooy perdante bu mag bi kon moo war a def très attention ci tentation yii am commandant bu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla mu sàmm la ci yoon wi waaw la ci armée bi xale bu ndaw la waaye ku am yar am teggin mu nga ne la toog loo ko xamee sa ci biir nit te bu duggee ci camp bi moroom mu bàyyi mi yee koy tóojal <laughs> loolu la yàlla dogal moom it maa ko jox tarixa bi mu nga ne la toog waaw di ko baax bu duggee ci camp bi moroomu baayam yee koy tóojal de loolu la yàlla dogal waaye bu ñëwee fii ci xadara bi kenn du ko xam ne mu nga nele ca fond ba waaw ajaa faal faal faal xam naa yow bokkoo ci belle-mère yooyu xëy na waaw yëngal na loxo bi de nee bokk ci de waaw belle-mère yi daal maa ngi leen di ñaan nañ yërëm seen jabaru doom yi te def leen ni doom yi njur xam nga li ma ci metti ma def benn entre parenthèse xam nga lu ma ci metti mën nga bunduxatal sa jabaru doom ci kër gi waaye sa doom bii sëy loo am yóbbul ko saabu nga yóbbul ko ndesitu ceeb nga yóbbul ko mbubb nga yóbbul ko te naan ko sëyal doom da muñ waaye doom bi jàmbur bi ci kër bi su boo xum yow rek lay dégg yemale woo bon te yàlla santu la woon loolu dafa leen laa tadruuna ayyuhum aqrabukum aqrabu lakum naf'an laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min allah yàlla ne laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci njaboot gi aqrabu moo gën a jege ci yéen naf'an njëriñ njëriñ xamoo ko mu ne man mi ko xam nag faridatan min allah maa ko farata nga yemale ñëpp maa ko farataal pour nga ñe pour nga yemale ñëpp ndax xamoo ko la ciy jëriñ te buñ leen jëriñ nit ñi fii la ñuy te te àllaaxira gën a garaaw bari na doom booy xeeb mooy téye ci sa loxo jàllale la ëllëg te xëy na sax doomu jàmbur lay doon koo gis rek alxalqu kulluhum iyaalullahi walxalqu kulluhum mazahirullahi nañu ci nañ góorgóorluwaat Hmm? wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutixuma yàlla ne bu leen topp de waaye wa saaxibhuma na nga ànd ak ñoom nag sa ndey la sant na la lu santaanewul entreel sa far bañal keccet ko bañal util gel bañal yooyu yëpp bàyyi sàggan yi dañ koy def yow fii ngay toog rek sa morom yëpp di doxaan doo doxaan am na paa yu ko yox man ma man ma dégg ko ba tey yow dafa mel ni yambar nga xanaa doo góor génnal kër gi génnal kër gi boo koy wax sa doom rek na fekk day jàngi wala mu war a liggéeyi waaye génnal sa kër gi pour taxawaalu ji yàlla seede na ko gis nga léeg am ñu ma ko wax aliya bii duma bàyyi ma fen <laughs> bu ma demee nii Europe dinaa dem ba ñibbisi du ma génn sama kër léeg-léeg ñu ne ma yow doo génn ma ne leen jëm fan taxawaalu mooy dem foo amul soxla ñu ne ma nga dem ay Champs-Élysées yooyu ma ne leen taxawaalu la di lu ma fay ut pour xool bu ma fa amee soxla dinaa fa dem mais awma ma fa soxla taxawaalu mooy dem foo amul benn soxla donte promenade la jëmmi promenade mooy jëmmu taxawaalu nit warul dem am fu warul dem fu amul soxla loolu mooy taxawaalu biir dem foo amul soxla mooy taxawaalu damay doxantu foo jëm doxante sax dagan na mais limité ko mais doxante boo xam ne da nga ciy sa bakkan du noonu su ko defee way jur dafa am doole ci doomam waaye bu xesee marié nag am jabar wala moo am jëkkër jëkkëram mooy kilifa góorit it bu xesee am soxna mooy kilifaay boppam gis nga fi mu ne nii bu neexoon xalifa sekk mu waaxu fu ko neex dem ñaanali boppam soxna ñu may ko mu ñëw dugal ci biir këram loolu góor rekk a ko mën góor mooy kilifa boppam bu xesee majeur jigéen rek mooy soxla kilifa entre parenthèse ana Mansour waaw démb maag Ousseynou mi laa mayoon Mohamed seen soxna yóbbul ko ko c'est la première fois ma jëli seet yóbbu ko dama doon seet naka la mel waaye dootul am de moom c'est la première et la dernière fois dama doon seet waaye gis naa moom façon doyadal bu ne daañ la ko doyadal moom moom amul kilifa nga amul ay dara nga amul si nga daañ la doyadala doyadala doyadal ba doo jar dara te c'est bien nag xam nga lu ma ci njëkk a jànge mooy ku rëy warul jëli séet ku gaaw a mer warul jëli seet loolu laa ci jàngee te c'est très important gis nga noonu la ñu lay def dañ lay jàngal ne la kër gi yëpp noonu la tëddee man loolu laa ci jànge boo xesee sëy yow jigéen noonu ñu lay kayitloo pour nga sëy téye bagage yi ne du dem kii ne maay jaam bi kële ne maay lale nga jox kii ba pare kële téyewaat ma ne xanaa du yéen ñi kenn ngeen ñu yeggati ba ci kër gi ñu ne bagage séet bi du wàcc ndax xaw ma lan ma yëkkati joxe ñu dem ba ca ëtt ba ne walis yi du dugg ma ne ah lii moom àddina bu tukki la di ndax walis yi dafa am balaañ koo dugal di ko ubbi am na lu ñu war a joxe ma ne ah lii moom métti na di mujj naa metti di ba quatre heures du matin laa yegg si ci kër gi dem quatre heures du matin laa fi yegg si dem façon doyadal bu ne daañ la ko doyadal jëndal mbasang jëndal daal la bu carax <laughs> ma ne ah yii yëpp am na waaye baax na ma xamee ko ci waaye tëgg ndënd ak sémmiñ la meex benn naqari benn waaw xam nga lii kenn daf ma ko bëgguma bëgguma yuñ may nettali te damay bëgg di ci jàng guro gi ne duma séddale nañ ma jox xaw ma lan yooyu yëpp baax na xam nga lu tax day wone ne ku tàng xol warta ñaani jabar warta am njabar day wone ne ku rëy warta jëli séet waaye séet bi la ñuy jàngal ne ko yow it boo yeggee bul rëy ku góor kii it ñu jàngal ko ne nanga woyof te neex deret te mën a muñ ndax bëgg a jot ci séet bi tax na lu ñu la laaj nga joxe dëgg la wala déet bëgg a jot ci séet bi tax na lu luñ la laaj nga joxe tey négocier naan waaw may leen ma rek ba suba nag yéen itam incha allah te incha allah ji bu suba passé doo ko def waaw ni nga négocier ñooñu lañ lay sant ne la bu bu soxna si ñëwee na nga négocier ak moom noonu lum la laaj lum diis diis bul saaga bul xuloo bul mer wax ko ci njëkk ak teraanga na nga ko waxee woon ba muy sëy si c'est très important jàngee naa ci lu bari démb te sant naa ci yàlla nag waaw ni ma tàngee xol man gaaw a mer waaye démb dama doon ree rek li ndax bëgguma nekk dof di dem di jëli seet nekk dof ba tas sëyub jàmbur kooku moom mu ëpp naa def <laughs> moo tax yàlla lu leer lay wax fabaasu xakaman fabaasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma fabaasu yónnil xakaman ku xereñ ku sages ku yaru ku dal ku teey min ahliha min ahlihi ci ku côté ku góor gi waxaka ku mel noonu min ahliha ci côté ku jigéen gi in yurida ndem nang namm ngeen rek islaaxan yéwénoo yuwaffiqi dana dëppale allahu buur yàlla baynahuma seen diggante lii rek la de mbir mi jafewut moo tax mag ñi boo musaan di ñëw labat si soxna poqe xam ngeen poqe poqe la ñuy jël lëjal ko ba mu lëj jox la ko di la xool boo ko daggee rek ñu ne la baax na doom boo boo yéggee rek nga seeti feneen ndax dañ ne ku mënta lijjanti poqe doo lijjanti jigéen bu nekk ci biir kër ndax jigéen a gën a lëj poqe mag ñi dañ yeewu de waaw wala bi jamono demee ba xaw a soppeeku dañ ni da ngay ñëw rek ñu séddale tàngal jox la di la seet boo ne ko kuruc rek ñu ne la doo am jabar ndax ku mënta macc ci tàngal ba mu seey doo muñal jigéen <laughs> waaw dañuy dof dof lu di séddale tàngal nii rek séddal la toog nag di la seetaan booy booy macc ba ne ko kuruj kuruj rek ñu ne waaw kañ bu leen ko may jabar kii dafa yàkkamti waaw ah, tàngal dañ koy macc ba mu seey mooy jigéen dañ koy muñal ba mu jeex yooyu yëpp mag ñi dañ ci daan njàng waaye léegi rambax rambax yi tax na moo tax li yàqu yëpp yàqu waaw ku nekk xulixal insaanu min ajalin ca jaru ko sa wurikum ayaati fala tastaajiluun yàlla ne danga yàkkamti rek waaye boo teeyee ma teg ci sa loxo li nga bëgg jarul parax paraxeeg rappi rappi xulixal insaanu min ajal jaru ko sa urikum ayaati fala tastaajiluun yàlla ne maa la bind ci yàkkamti na waaye dalal rek boo dalee rek li nga bëgg ma teg ko ci sa loxo waaye bul ñu fi ne di rambax rambax rambax rambax baaxul su ko defee boobu mooy bi njëkk beneen bi ci des mooy eh, ku bëgg a sëy it foog nga muñ wut appartement du tax nga nekk ci tranquillité sa jëkkër utal la appartement du tax nga fiix sa jëkkër utal la appartement du tax nga am li nga bëgg li nga bëgg boo nekkoon ci biir ay gaynde war nga ko mën a am en tant jigéen parce que jigéen la yàlla bind bindin boo xam ne moom rek moo mën a gérer te kenn du ko yëg góor mënu ko moo tax jigéen mooy gérer dundu kër gi mooy gérer dépense bi mooy gérer xale yi mooy gérer yépp yow da ngay financer muy gérer gérante la ndaw si gérante la dafa war a nekk ci kër gi comme comptable di doxal comptabilité ànd ak gérance bu baax nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jigéen bu ko boroom këram bàyyee ci këram na ko sàmmal boppam sàmmal ko alalam ba bu yàqu kooku comptabilité la kon jigéen ñépp war nañu doon comptable man lool mathématique fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin bu ma ko waxee mooy xam li sa jëkkër indi nga xam ne bu yàqoo yaay uti wala moom mu uti nga sakkanalal ko ko yaxanal ko ko jigéen loolu mooy roolam ci biir kër gi ku war a mer nga defal ko li nu ilayha parce que yow yaay régulateur bi ci biir kër gi yow ndaw si jigéen joo gis régulateur la walla nga indi ko ci conférence nga ne modérateur la dafa war di modérer di réguler mbir mi looloy roolu jigéen lu tax li taskunu ilayha yàlla ko wax man waxuma ko bu jigéen góor ñi ràmbaxee rambax ràmbax ba jaaxle mu ne yéen jigéen ñi na ngeen leen dalal bu ñu see ci kër yi Alaaji Usmaan Gay moo ko daan wax loolu maa ngi koy jox jigéen ñu ndaw ñii sëy te amaguñ doom ñoo ko moom Alaaji Usmaan Gay Baay Usmaan Gay moo jur Imaam Moussa Gay moo daan wax ne góor bu utijee mu xëy liggéey mën naa ñàkk mën naa am rawat yi ñan ñi ñuy wax dóor waar nga xam ne yaakaaruñ solde seen ñaq bopp lañ yaakaar pour indi ci kër gi journalier lañ leen di fay par jour mu ne mën naa uti amul wala kii di bureaucrate dem ñu àngale ko ca bureau ba wala ñu wax ko nu ko naqari mu ne mu ñibbisiwaale xol bu naqari mu ne ndaw si la koy sippi de mu ne waaye yal na fa fekk ji waaye yal na fa fekk jigéen buñ yar mu ne moo tax góor ñëpp maa ngi su ma sañoon góor ñëpp yar jigéen ñi ndax bu jigéen ñi yaroo rek góor ñi yaru mu ne bu fa fekkee ndaw suñ yar bu ñëwee àngale ko ndaw si danaan pat xam nga ko amut day naqari deret mhm. te lu la chef ba sippi ca biir service ba boo ñëwee sippi ko waa kër gi ci ndaw si ngay njëkkee yow xale yi nii ñu mel nag sangoo leen yow ti da salte te fekk ndaw si deful dara da mer rek waaw ut fooy féexalee sa xol bi lu def rek ay di njàmbat lu def rek muy kaani buñ sotti ci biir kër gi mu ne waaye yal na fekk fekk soxna suñu yar mu ne su ko anglais mu mënoon ko tontu te dara du ko ci fekk mu ne mu ne patt wanaa su baat bi moom ndaw si mu ne wanaasu boobu mooy wanaasu baat bi mu ne yàllaa ko naan doomu ëpp ngor dinaa la won ne ku ma lebal ma fay la mu ne yàlla daf koy bàyyi ba mu wan na lor ñu ne wan na lor xam nga lu tax ñu ne wan na lor lor yi ko jëkkëram doon yo lor yépp la boole wan na ko moo tax ñu naan ndaw si wan na la lor anglais yi saaga yi gëdd yi minimiser yi toroxal yi yépp la boole wan na ko moo tax ñu ne wan na lor booleeg nag maniyu bi ci biir roxamam yooyu yépp ay lor la mu ne yooyu yépp nag boole ci kaddu yu tàng yi saxaar mu wann yépp mu ne yàlla ne ko doom a gën dinaa la fay mu ne day bàyyi ba sa doom ba nga ëmb baat booba nga wannoon mu wann ko sa doom mu ne mu judd nga jox ko sa ween mu jox ko weenam mu nàmpaat baat bi mu ne mooy waral bu màggee toog ci pénc mi wax kenn du ko dindi ndax ndeyama wan noon baat ba démb ne mooy waral bu toogee ci pénc mi wax kenn du ko teggi mu ne ndax ndeyama wan baat ba démb yàlla feye ko ko tey ci pénc mi mu ne waaye benn fukk ee eh, may ma danga di nit may nit duma mbaam duma xaj du noonu maa ah waaw waaw eh, dañ cee gaaw di eh na dakk nag ah du noonu du noonu du noonu yow yow dañ la ne kii moo la yilif waaye yaa ko war a dalal boo defee noonu day téppatiku mook dof bu ñuy faj mu rëcce yem ah boo defee noonu mook dof bu ñuy faj mu rëcce yem kum jot gaañ ko <laughs> waaw ah, yow ndaw si da nga koy gën a dal da nga koy gën a dal parce que yow lañ sant nga dalal ko waaye boo ko tàccoo mu gën a dof ndax ay tàccu rek day dof loo nit tàccu yu bànneex rek day dof loo nit waxuma nag tàccu yu naqar te jigéen yooyoom ñettam yooyu kenn àttanu ko ñetti tàccoom yooyu kenn àttanu ko te ñetti yoon la leen ko seetlu ñetti yoon lañ koy def du ñeenti eh buñ ko defee rek loo am am fit da nga ne pat maa la ko wax loo jàmbar jàmbar di nga ne pat moom kay da mel ni ganaar gu taw tawte rek a ah, tey dëgglu loolu nag bu la ko yàlla joxee yow jigéen pouvoir bu toll noonu da xool ku doll ni président de la république wala ku toll ni ab sëriñ ngeen ma def benn entre parenthèse du tudd turam xam naa ko nag bu baax benn waaye bu doon ñëw di jàmbat soxnaam ci benn kilifa waxa waxa waxa waxa waxa bay teeral kilifa gi ni ko ah yow de li nga wax yëpp du dara taalibe bi di ko xool te li ma leen di wax nii du xista de xam naa ko damay bañ a tudd tur mu wax wax wax ba pare mu ne ko yow de li ngay jàmbat du dara waaw man est ce que xamee nga ma jàngal mbaxana man mii sa kilifa mu ne ko déedéet mu ne ko sa tànta diw moo fi ñëw léegi wax ak man baal ma imaam Yusuf wax ak man benn ma li ngay jeng mu ne ma faf bàyyi nii mbaxana mi waa ji ne ko man de yeggaguma foofu mu ne ko demal muñ ah moom la yaakaar mooy kilifa mu wax ko loolu mu ne ko gis nga ni sama mbaxana mi jengee xam nga ma jàngal mbaxana mu ne ko déedéet mu ne ko sa tante diwo fi ñëw waxa waxa waxa waxa ba ne ma ni nga jengee mu ne ko tax yow xamee woo ma jeng te man xam naa ne man jengu ma waaye loolu la ko yàlla nattoo lii la ma yàlla nattoo ma muñ mu ne ko ah na góor gi yeggagum koy jàmbat am na ko la piir le mu ngi koy muñ ci côté ku góor ci côté ku jigéen kon mbir mi ku la dàq muñ rek moo la gën soxna jigéen bu la dàq muñ it moo la gën jëkkër jàmm ju sax dàkk ju amul dara àjjana rek la am àddina bii bëñ ak làmmiñ bii ñoo dëkk léeg-léeg da ngay yëy si si ngom matt sa bopp ba dootoo bëgg ci ngom bi léeg ngay lekk ceeb matt sa bopp ba sa àll àddina tukki nooy def dangay bàyyi ceeb bi da ngay bàyyi mu sedd nga dankat loolu la loolu la parce que yéen la yàlla boole mënu leen tàqali kon nañuy muñalante fokk muñalante am waaw kiy sëy ci biir kër na xam ne moom moo yor autorité kër gi mu uuf ñëpp beneen bi ci des am na ku ma ko wax mu ne ma yaa ngi wax rek semaine bi passé la ma woo damay bañ a tudd turam ku jigéen la mu ne ma yaa ngi wax rek doo wax nag ñun ñi suñ jëkkër yi nekk extérieur ma ne ko yéen a gën a tarsu di ko yéen a gën a tarsu gis nga ñaar a ngi nii ci charia nag lay wax jigéen rek ko mën moom lay wax ndax mën nga wala mënu sa jëkkër bu yàggee àll charia daf lay laaj est-ce que mën ngaa muñ boo nee waaw yoonu kenn newu ci boo nee mënoo muñ nag dañ koy dindi ci saa si te bari na ku naan maa ngi muñ nag mënta muñ am na bu xew dinaa ko wax ndax ñun ñëpp dañuy dund vivre ma lañ koy xaw ma du noonu moom la eh, colonel commandant waaw bi vibromasseuse mais dafa xaraam dafa xaraam tifaaqan tifaaqan nag laa wax dafa xaram jigéen bu koy utiliser yaa ngi mooy yàlla comme kuy njaalo ñoo yem njaalo dafa bari ay catégorie waaye yépp benn la bët dana njaalo yonent bee ko wax gémmiñ dana njaalo tànk dana njaalo loxo dana njaalo pëy dana njaalo gis nga boo yeggee ci bu pëy bi nag yépp dugg na moo tax bu pays bi moo ko moo ko coiffé yépp yi ci des yépp sous couvert de pays bi la sous couvert de toj caax yi la pour ngeen dégg li may wax fóon njaalo la xool ko rek di bànnee ko ci moom njaalo la ndax bët yaa ngi njaalo ndax li ngay xool yaa nga naan bu ma yeggoon foofa dëgg la wala déet dégg sax njaaloo am na ci ba ba ngay toj caax yi nag boobu nag mu ko coiffé yépp nag léegi ya nga doon raam yëpp yegg si nga ci ndeyi mbill gi moo tax boobu nag caw war ca wala rey parce que da nga doon raam yegg si nga ci ñag bi mais vibromaseuse dafa xaram te la preuve ñi ko mos ñëpp ne nañ mënatuñ koo bàyyi parce que obsédé la daf lay yóbbu ci étape boo xam ne góor mënu ko parce que machine nga yor li tax ma ne xaraam na dafa dugg ci cadre masturbation góor masturbé wu dafa xaraam mooy téye sa awra di fo ba yu génn jigéen tamit nekk ci awraam di fo yëg boppam dafa xaraam mooy lu Oustaz Sidi Ahmed doon wax keroog man yi bu tuuru est-ce que boobu waratoon a jur waliyu loo ci xam maniyu bi nga tuur est-ce que du boobu moo waroon a jur wali nga sànni ko ci àll bi yooyu yëpp yàlla da la ciy tii ah, yàlla da la ciy tii masil béwu dafa xaram ci góor ak ci jigéen tifaaqan boo waxee ñu ne nooy def nga muñ ak li yonent bi wax nee na taqool koor nee na ki amul soxna walla ki amul jëkkër nañ taqoo koor ñoom ñaar tey lekk tuuti <laughs> loolu la yonent bi wax salaay sallam man waxuma ko yonent bi moo ne ñi amul soxna ñi amul jëkkër nañuy lekk tuuti tey taqoo koor ndax koor day rey bakkan waaye ceeb bi dank ba miin lekk sa kollu de fàtt añ reer ndékki nalu naan ataaya naan njar jaaxaan te sa xel du nekk ci jigéen wala góor sa xel du nekk ci euh, góor jigéen sa xel du nekk ci góor ay jaaxaan la fii àddina la kuy dund fii fi kuy dund malaaka yi newuñ fi du ñu ay malaaka ay nit lañu malaaka yi ñoom laa yaasuuna allaha ma amaroom laa yaakuluuna wala yashrabuuna wala yanaamuuna loolaa tax ah loolaa tax malaaka yi laa yaakuluuna du ñu lekk wala yashrabuuna duñu naan wala yanaamuuna du ñu nelaw wahum ñoom ibaadullahi mukramuuna ibaadullahi mukramuuna jaam yàlla yu yàlla teral lañ laa yaasuuna allah lu ñuy mooy yàlla mukk maa ca la nga xam ne amarahum moom la leen digal ñun ñuy lekk ci wa yafaluuna maa yumaruun ñun ñuy lekk xorom si topp ñuy naan suukar si topp nga ne doo def yëfi nit léegi nga dee am na ko fi ñëw léegi wallahi wa sharafil quran yii dañ ko war di waxtaane sëy dañ ko war di waxtaane parce que kër yëpp waaw lu foog nga def yëfi kuy dund yonent bi nee na ko amul soxna amoo jabar jigéen bu amul jëkkër mu ne na taqoo koor tey lekk lu tuuti lu niiw ñu ne ko lu tax mu ne ndax day rey bànneex ba ba ngay am jëkkër wala ba ba ngay am jabar waaye yow télévision bi du la raw film yëpp nga seetaan te film yi ci ëpp fóonanteeg tëddante la ngeen baal ma ci wax bi léegi mooy dëgg nga di ko gis sa yaram di tàng waaye <laughs> nañ waxante dëgg bu ñëpp fatoo tëj seen bunt doo am foo tëjee sa bunt di nga masil béwu waaye nañ waxante dëgg film yi benn baaxu ci film Sénégal yi sax léegi am na fóonante bu njëkk sax Sénégal yi daan dégg naa ko dégg naa ko ndax man du ma seetaan di ci ëpp sax télé Sénégal bu dul journal télé Sénégal yëpp journal rek laa ciy seetaan yàlla xam na ko wala programme religieuse bu ma amal solo pour xam waaye duma seetaan lii ci des yëpp yàlla xam na ko man li li ëpp sax France 24 ñëpp xam nañ ne man France 24 mooy sama télévision moom rek lay seetaan wala C News wala Euronews yax na télé Sénégal yi li ma ciy seetaan nag si néew mooy journaux yi seen journal yëpp nag dinaa ko seetaan wolof yeeg français yi pour xam li xew ci réew mi ak bitim réew ndax booy dund ci ay nit da ngay xam li li fa xew seen revue de presse yi dara duma waaye film yi mosuma ko seetaan yàlla xam na ko amul benn film bu ma ci mos a seetaan football nag waxee noppi kon. Euh, am na ko ñëw sànq ku jigéen billaay yéene naa ko ko te incha allah dinaa ci dox lu ma mën wóor na ma ne léegi 60 mat mu ne ma mosuma am jëkkër ba ma juddoo ba tey billaahi wal kitaab bi dama ko yërëm mu ne ma ba ma juddoo ba tey mosuma digg alxayri mu ngi feebar nag ma ne ko lii la dal feebar boobu bii la dal nii jarut ma di la ñaanal jëkkër la ndeysaan mu sëgg ne ma wax nga dëgg ndax docteur yi wax nañ ma ko ma ne ko doo wér te amoo koo fanaanoo nit danga koy wax dëgg xëy na it taamu gaa tax xam nga jigéen dangay ngay toll ci sa période naan du kii du kii du kii du kii ba kii rëcc la ngay kii kii nag ah waaw du kii du kii du kii du kii du kii du kii rëcc la ngay kii kii gi na fu ne di nga fa jëm du sotti wallaay dara amu <laughs> mu ne bu doon xale la bëgg na waaye mag la gis nga kundul mi mag la te bëggul mag kundul mi xam naa ne ëpp na 60 ans te mu ngi naan bëggul mag ah ah Koundél wax na dëgg Koundél wax na dëgg ah gis nga mag ñi sax gone lañ bëgg boo demoon ca jigéen ña it jigéen ñu mag ñi xale lañ bëgg de bëgguñ mag de léeg man problème sociaux wax naa leen démb ci seet laa nekk ba 4 heures du matin bi may si ci kër gi bay def sama shafa ak witr 5 heures du matin jot na balaa may def sama yeneen awraat yi 6 heures 30 pile ma dégg ñuy salaato 7 heures 40 laa tëdd ci lal midim laa jógaat di recevoir ba ni ma yéeg fii gannaaw dem juma moo tax maa ngi ñaan tamit bu pa xadara bi pare bu dee dinaa recevoir fu zéro heure jotee ngeen ngi lil lillaay war rasul yi dafa am ko ma war a jëli aéroport parce que une heure du la war a ñëw maa ko war a jëli une heure matin la war a ñëw te maa ko war a jëli wu ma ku ñëw gis ma lu ma am mbokk ak ñëpp ah waaw kañ astu jaxal <coughs> waaw kon man li may wax xam naa ko ndax man nit ñi ñoo bokk di dundu li ñuy dund laay dund ñu di ma ci wax nag luñ dul wax keneen kon il faut ñu di ko wax pour mbir mi mën a régler wu lii rek laa ci jubluwaay du leneen bi ndaw si waxee ba noppi ma ne ko dinaa fexe nga am boroom kër loolu mooy saafara sa feebar loolu rek laa la mënal fi ne waaye salaatul faati yi du ko dindi faatiya du ko dindi jëkkër a koy dindi voilà te man wax naa ko billaahi borom kër yi buñ ma mayoon ndigal ci seen doom yuy jigéen yi xale yi déggal ma ñépp danañ sëy ñépp ay sëy c'est très facile xoolal sëy bi ñu yóbbu démb nijaayam a ngi nii man Mansour Thiam ñoo àndoon amul benn jafe-jafe yiñ doon laaj noonu yooyu ay kii la rek parce que biñ waxee seen wax yooyu ba pare ne ma ah ay dara baal ñu àq de ma ne leen déedéet xam nga lii yàlla sax da ko bëgg kaf yi ak sonal nit ñi nii yàlla da ko bëgg ndax taxawaay yowmal xiyam kenn xamut lu ñu la fay pamti pamti yu sew yii nag boo ko muñooy xëy na yàlla jéggal la yooyu waaw ñàkk a sëy waaw waaw ah. am na benn xale bu jigéen bu ma ko wax léegi ma ne ko demal ne sa papa bu fekkee ne may na man ndigal ajjuma bi di mën naa laa maye nga dem sëyi te noonu laa ko ma mënee ci ñëpp problème bi rek mooy complication bi bi ci des nag man yàbbuñu ma ndax ku ma ci may danaa la wax loo xam ne boo ko foyee bu laajee tribunal ma yóbbu la tribunal bu yàggee bu laajee police ma yóbbu la police ñu làpp la ba nga nooy parce que ba nga ko bëggee danga xar sa tànku tubéy pour ñu may la ko du ma nangu ñu may la ko nag di ko foyee 1896 maye naa leen waaw 1896 si 93 ak fii ma toog. sëy bu ci ne xam naa fu seeni borom ne te yépp ci sharia ak sunna la tege mbir mi yomb na waaye buñ ko jafeel waaye buñ ko yombalit bañ koy foye buñ ko yombal bañ koy foye kon ñun ñépp loo xam ne boo ko amul uti ko waaye soo ko amee téye ko jigéen bu amul jëkkër fu ne dana fa dem ñaanal ma yàlla ma am jëkkër ñaanal ma yàlla ma am jëkkër léegi rek bi may jógee juma am na ñett ñu ma interpellé ay xale yu jigéen ma ne ndokk bi ma taseeg yéen bi ma jógee juma ndax nañuy lemmat lemmatee ka nemmat nemmatee booy wax ak ñoom bu yàggee sa njàpp toj boo ca bëggul dara it seen baat yooyu la nañ koy defee di rage joo ko piis yooyu yàlla da koy tere te loo ci mën foog nga taxaw déglu leen yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdana bilqalbi fa yatma alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan maarufan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati luule wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula innama yuridu allahu li yujziba ankum rijza ahla albayti wa yutahhirakum tathira lii la te foog nga déglu nit ñi mënoo leen bañ a boo leen dégluwut yàlla topp la te foog nga déglu leen nooy def autorisation rek moo jafe ci ku mos sëy ñi mos a sëy ba noppi ne naa leen ku ma ci wóolu di nga am boroom kër waxuma jëkkër de jëkkër moom yomb na góor ñëpp jëkkër lañ borom kër mooy ki xam li ko war ci këram mu di ko def nam ko mënee koo koy borom kër Sénégal yëpp mën naa leen maye yàlla xam na ko billaahi wal jigéenu Sénégal yëpp mën naa leen maye mais kenn ku ne am nga ko bëgg wala am na koo bëgg boo bëggul kenn ñu seetal la kenn lii rek la <laughs> ah, lii rek la amul beneen amu ci beneen secret amu fi ku ne am na koo bëgg wala ku la bëgg ñu dox ko boo amul koo bëgg kenn bëggu ñu indil la koo bëgg ne la loo xam ci kii li may wax gars yi toujours nag aw ma sa bu la neex léeg-léeg nga ñu indi kii mën a seetal ma kenn nga indi mën a seetal ma man ne déet man aw ma sa bu la neex de ngeen baal ma wallaay am na ci benn kilifa wallaay waxoon naa ko fi bu ko bu daggul jarul censuré benn kilifa mu di ma utloo jabar kilifa la kilifa la ci sant yu mag yi ci Sénégal ci la bokk di ma utloo jabar ba mu utal ko benn soxna fa ci Nord Foire yóbbu ko ci ndaw si ñu togg waxtaan ba pare bay jóg di dem biñ génnee mu téye ma ci loxo ñu dem ba sori mu ne ma ah seet keneen kii ween yi daa tuuti <laughs> maazallaahi ma ne ko yow noo def ba gis ween yi <laughs> billaahi wallaahi tallaahi man lu ne lay daj lu ne lay dégg ci problème sëy yi lu ne laa ciy dégg yàlla xam na waaye du tax ma découragé du tax ma bàyyi parce que yàllaa tax may def waaw ah, lu ne laa ciy dajit nag lu ne laa ciy daj yàlla xam na ko mais dama ko def li yonent bi wax ne man lam yahtam bi umuuril muslimiina fa laysa minhum salaay sallam nee na képp koo xam ne ittee jullit ñi du sa itte yaa ci boole sa bokk waaye bokkoo ci te ku nekk ci société bi ku war a amul démb am na lu ma frappé bi may yóbbu séet bi benn handicapé bu ma nuyu ci guddi gi day day raam nii ci suuf ma jonkoon ci suuf nuyu wanteeg moom ba pare ba jóg wax ak moom li may wax ak moom ba pare jóg bay waaj a dugg ci oto bi mu waat ma ne ma nuyul kële toog mooy sama soxna dox bee déplacé bee yombul ma dem fekk ndaw si mel ni moom ndeke mooy soxna ma ne voilà la réalité nekk handicapé terewu la war a mën a am soxna ci société bi nekk ko ci jigéen terewu la mën a am jëkkër ci société bi ñépp a war a am soxna kenn rek ngeen baal ma ci waxe mi parce que fokk mu leer kenn rek a warta am soxla ci société bi mooy yoom ab yoom moom sharia dafa ne bu ko kenn may jabar buñ ko xamee nañ tas sëy ba immédiatement ah waaw alxaaji si Cissé jinge mu baax mii suñu maam bàyyi bu baax boobule mooy faral di wax ci waxu wolof bu leeru mu ne garabu doogóor xam ngeen ko doo góor ca ca saalum la am bari na saalum ci àll bi sax am na fi benn garab la ku xaw a niroog euh, euh, new ñoo niroo ay xob moog new doo góor la tudd mu ne kër gum sax mu tas mooy doo <laughs> mu ne kër gum sax kër ga tas bi wax ma ne ko ah ko de jarul saxal ci kër mu ne mooy waxtu bu borom kër déggee doo góor na fase soxna si wala na soxna si uti pexe rek ñu ñu dindi sëy bi loolu dong la jigéen di jàmbat ñu tas sëy bi immédiatement du góor boo waxee ñu ne naa ko muñ ku la sant nga muñaale ko daf la jëlee woon sa kër baay waxaakaza ñi nga xam ne nag bokkul benn tey ak ñi seen boroom kër yi nekk extérieur waaw ah. ñi seen borom kër yi nekk extérieur dañu leen di laaj mën ngaa muñ nga ne waaw waaye muñ lañ wax de waxuñ muñantu mën ngaa muñ waaw mënoo muñ nañ ko tas ba wat whatsapp yi xeewee ba tey nag ñu ngi ciy def lu ne waaye loolu saaf yi jafewul ñoo ko jafeel kon boobu ñi seen soxna yi nekk extérieur nañ leen yërëm ku ci mën a ñëw ñëwal seydinaa Omar ma jeexalee passage boobu dafa daan def day yebal contingent ñuy dem di xeexi at un an atu yàlla moo daan def ronde nag moom Seydina Omar guddi gi day def ronde parce que mooy amiral muminina lu dëgg ci dëkk bi moo ko war a jubbanti te am na loo xam ne bu génn du ko gisal boppam moo tax Seydina Omar moo daan rondul boppam toute la nuit guddi gi yëpp du nelaw dina wër Medinatul Munawwara ba bët ba bët ndax nee na responsabilité bu ba cëgee nag mu dem ba ca àll ba ngege ay dàllam di nelaw bu toogee ba yor yor mu dem ca àll ba seet genn taatu garabu tàndarma gu sedd mu tëdd fa njegenaayoo ay dàllam di nelaw am na benn sàmm bu mas a dox ba fekk ko mu ngege ay dàllam di nelaw mu tiim kook jaaseem di ko xool di ko xool ba mu yàgg sax mu wàccee jaase yi yee ko Sina Omar jóg mu ne ko billaahi màndoo tax nga ñeme lii waaye boo maandu wutoon bu doon def nga ma dara danaa la rey ba noppi nit ñi door koo yëg waaye billaay maandu maandu rek la may nga tëdd ci taatu garab gii di nelaw te kenn gardeelu la en tant que amiral muminina xoolal loolu moo tax maandu maandu maandu mooy garab gi gën a rëy waaw surtout buur warta am mbokk dëgg rek a war a nekk mbokkam waaw bu mbokkam amee dëgg mu jox ko bu mbokkam amee ay kàcc mu delloo ko bu jàmbur amee dëgg mu jox ko bu jàmbur amee kàcc mu delloo ko buur mbokkam mooy dëgg la war a doon ndax moo njaboote ñépp kon loolu ko ci bar ko waxoon bàyyi alaaji ma Moussa Guèye mii moo ko weddi nag alaaji Ousmane Guèye moo ne du dëgg mu ne kocc dëgg la lu mu wax dëgg la waaye boobu dafa juum mu ne jigéen soppal te bul wóolul doomu jiit la du doom buur du mbokk mu ne ñaar yépp kàcc la waaye benn bi dëgg la ñu ne ko ban mu ne doomu jiit la du doom lu tax doomu jiitle bu baaxee doom la kon doom yépp mu ne bari na baay bu sol mbubb mu yiw doomu jiit lee ma ko jënd bari na baay bu dem Makka doomu jiit lee ma ko fa yóbbu bari na baay bu dugg ci biir kër doomu jiit lee ma ko fa dugal mu ne doomu jiit def lu baax lii yépp ustaas buñ yaru toog ca rajo ba di wax naan doomu jiit la du doom yaakaaram tas mu bàyyi yiw wam doon def mu ne doomu jiit la doom la kon doom yépp bu baaxee mu ne beneen bi ci des jigéen soppal te bul wóolu mu ne foofu nag ay caaxaan dëgg la El Hadj Ousmane moo ko doon wax yal na yàlla dolli leeram ñu ne ko lu tax mu ne li ngay nëbb ndey di ko nëbb baay di ko nëbb doom di ko nëbb sëriñ di ko nëbb ñépp bu guddee ka nga koy won boo ko soppee te wóoluwu dina ko saf mu ne du ko saf mu ne kon du dëgg mu ne li ngay ñëbb nëbb ñëpp ka nga koy won nga ne sopp nga ko waaye wóoloo te yaa ngi koy nëbb ñëpp te bu ko noon kàttit nga ñàkk foo ji mujj tribunal donc mu fekk ñàkk nga ba pare mu ne kon loolu du wax jigéen soppal te bul woolu du wax genre humiliation la ci jigéen yooyu nañ ko bàyyi jigéen soppal te bul wóolu mooy yan mais kon góor it soppal te bul wóolu ndax góor yi gën a mën a trahir fii trahison piir góor ndax li ñuy teg jigéen ñu góor goo ko ci tegoon baqataan génn ci bicc ñu ngi takk ñaar ak ñett ak ñeent sama kalaas ki te jigéen bu ci boo ci xamoon muy wax wat whatsapp rek yaa ngay bëgg a dee xam ku muy wax kon nag yëf yi tamit nañ ci yem nañ ci yem parce que liñ mën a supporter ñun mënuñ ko supporter mu ne waaye buur du mbokk nag loolooy dëgg jigéen soppal te bul wóolu mu ne du dëgg doomu jiit la du doom du dëgg mu ne buur du mbokk boobooy dëgg ñu ne ko lu tax mu ne buur dëgg rek moo war a nekk mbokkam bu jàmbur indee dëgg na ko ko jox bu jàmbur indee ay kàcc na ko ne ay kàcc bu mbokkam indee dëgg mu jox ko dëgg bu mbokkam indee kàcc mu jox ko ne ko ay kàcc la dëgg rek moo war a nekk mbokk buur ndax buur ñépp la joboote kon buur jikko yàlla la war a yor yàlla ñëpp la joboote kon boobu amut ba ca des mooy ah Seydina Omar contestant yi mu daan yebal un mois un an lañ daan def léeg-léeg sax ñu def un an six mois bi muy def ronde nag mu dégg benn jigéen taalif ci biir néegam jërëjëf bokkal taalif ci biir néegam naan billaay amiral muminina mu ngi mu ngi mu ngi lor jigéen ñi jàpp sama jëkkër ji yóbbu ko ca àll ba muy xeex te fii ma tëdd soxla naa ko atu yàlla ak nangam mu ngi xeex ci àll bi billaay bu ma ragalutoon yàlla dinaa ut geneen góor wuutal ko mu fanaan fi waaye xool naa sama diggante ak sama borom naa Omar dégg ko rek taf gémmiñ gi bër set mu àkki Sayyidatuna Afsa xam ngeen kuy sayyidatuna Xafsa soxnaay yonent bi waaye moom Seydina Omar moo ko jur xam nga ñaar a tax mu laaj ko doomam la moo ko jur waaye ki gën ci mbindéef la doon sëyal kon war naa xam lépp mu àkki Afsa ne ko af Afsatu mu ne ko la béyki la béyk mu ne ko wax ma sa digganteeg sa borom te bu ma nëbb soo ma nëbboo yaag yàlla ndax ki gën ci mbindeef moo la doon moo lay moo lay denc moo la doon denc man mii di amiral muminina yaa ma yilif li ma lay jur jur ndax sama ndey nga tey ñaari yoon kon nag dama lay laaj jigéen ñaata at wala ñaata weer la mën a toog muñ borom këram du ko gis sayyidatuna sa sëgg mu waxaat ko ko mu sëgg ñetteeli yoon bi si naa Omar ne ko boo ma tontuwul ma jóg dem te balaak yàlla boo légee nga lay kook sa borom mu siggi xool ko ne ko bàyyi mu ne ah, mu ne ko ki gën a jàmbaare ci ñun juróom benni weer te kooku yox soxna yonent bi la de mu ne ko juróom benni weer daal wóor na ma man xafsatu ne jigéen mën na ko toog du xalaat boroom këram xelam du dem ci ñoom moom mu ne waaye juróom benni weer yu lu ca tege mën na am interférence léeg xelam dem ci léeg xelam du ci dem Seydina Omar ne ko kon fa ca xelam di demee bu ko yàlla dimbalewul mu defi safaan ci la commencé décréter par 6 mois contingent bi bu ñu demee 6 mois ñu ñibbisi ñu relever waat leen ci la ñoo commandant mbubb mi armée yépp ci lañ ko sàccee par 6 mois yaakaar naa mission yi ci ëpp yépp 6 mois 6 mois la bu dee gradé yi ñooy def un an wala deux ans waaye ñi gradé wul 6 mois 6 mois la du noonu commandant waaw ñi ci ëpp xam naa li may wax ne loo dégg ma wax rek géstu naa ko tooguma fii rek mel ni rajo bu yàqu de loo dégg ma wax rek dama ko gëstu door koo door koo wax ci la Seydina Omar décrété loolu six mois la wax waaye yow nga bàyyi sa jëkkër nga bàyyi sa soxna fii ci senegal nekk ci Italie xëy na amoo fa soxna wala am nga fa soxna kii nga bàyyi ci ci ci dëkk bi am nga kayit del def tous les deux mois nga ñëw seet si ko soo ko mënoon sax defal tous les mois waaye tous les mois bii yombut nga def tous les deux mois maximum tous les trois mois nga seet ko mooy dëgg nag mooy dëgg mooy dëgg mooy dëgg jigéen ñi tamit bëgg àllal bu mu leen pousser sept ans dix ans quinze ans sa jëkkër nekku ci àll bi amul këyit nga ne da toog di muñ am na fi yu ci bari day bu doon cinquante quarante cinq yëpp ñu ngi ci leneen muñuñ xam naa li may wax nag mën nga muñ bañ a uti beneen góor waaye appareil yi ci kër yi mu ngi toj kër yi de ak masil beewu masilbation mu ngi toj kër yi te dafa xaram yépp dafa xaram sharia moo bëggul nit kuy fo balaa ngaa fo dañ ne defal farata waaye nit ñi nag fo moo leen gënal farata fi mu kon nañ ci góor góor lu a baax a baax a baax a baax jigéen ku la ko gën a yërëm moo la gën a jege yàlla góor gu la gën a yërëm jigéen moo la gën a jege borom góor gu la gën ci biir këram moo la gën a jege yàlla moo la gën ca yàlla it na ndax yonent bee ko wax nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njobootam te man maa gën ci sama njoboot moom nag mbindeef yàlla yépp a tax muy wax moo tax mu gën ñu xayrul xalqi kon ku bëggati mel nu nu baax royal yonent bi wala kum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarjullaha wal yawmil axir bi may jeexalee beneen bi nag mooy tariqa bi moom laa ubbee woon balaa ñuy julli timis gis nga ana Oustaz Sidi Ahmed Mbay waaw balaa ma koy wax mu ñëw waaw